ñu ngi fii ci unité 10 des Parcelles Assainies Gora Sock di mbër mi nga xamante ne moom moo war a tase ak Tyson 2 moo ñu fii invité ñu fas yéene xool open press bi ni mu ko fas yéene defee fii ci unité 10 des Parcelles Assainies moom Gora Sock egseegul mais ñenn ci am di jàmm mi ñenn ci ñi nga xamante ne ay ay xaritam lañu ay soppeem lañu ñëw nañu mbokk yi nañu dem xool ji nan la ñu ñëwee ak lan la ñuy wax euh, Gora Sock ak na la ñu préparé seen bés. maa ngi taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tapha maa ngi siyaar. waaw maa ngi delloo siyaar baax a baax gaan. voilà ñu gis nga ñëw teew euh, ci sa bésu euh, xarit sa bésu euh, muy Gora waaw Gora sunu mag la sunu frère la ñun ñëpp ñu nekk ay mbër nag mais ñun fii nii li ñuy dund mag ñi jiitu gone ñu topp seen ginnaaw moo tax ñoom seen bés ñun dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw taxawu leen gunge leen ñaanal leen yàlla may leen ndam daal. xanaa nekk sëm rek doomu nday Gora Sock maa ma yataa góor sama doomu nday sama ci po sama lonko maa doomu ndeyu góor soog maa ngi nii toog man la man la zëm mu góor a soog dara suñu mbër rek lañu gëm waa di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ndax euh, nekk nax mbër moo xam ne daal am nañu yaakaar ci moom. ñu xam ne Pikine incha allah ñaari defet la ñuy am waaw la 27 ak la 28 ñun ñooy waa génération xarañ ñoo ñu yabal pour ñu ñëw ci góor a soog parce que Gora Sock macha allah lu waa génération xarañ xew la rek lay ñëw. voilà mbokk yi ñu ngi euh, taxaw ak ki nga xam ne mooy Yékini Junior champion maa ngi ziar. génn maa lay ziar. waaw ñu ngi sant bu baax a baax. ak état bi. waaye góor ñu ngi góorgóorlu. nga ñëw teewal tey euh, sa bës euh, copain sa xarit muy góor a Sock nan nga gisee bés bi mu jëm. am yaakaar bu baax ah parce que liggéeyandoo nañ bon mi ngi liggéey bu baax a baax donc li am na njort bu rafet ne yàlla dina ko may ndam bu soobee yàlla ndax dañ la coono yooyu donc li ñuy xaar mooy jour yi yàlla defal ko jàmm mu am ci ndam euh, koo xamante ne dafa am expérience su làmb ñëpp xam ko muy Tyson 2 mu naxaree bëreel également euh, amoo dara looy tiir ci combat bi non Tyson 2 champion la Gora Sock champion la donc yaakaar naa ko ëppul doole ñaareel mënoo ko donc li am solo rek mooy ku ne waaj na te ñun xam nañ li góor a waaj donc dañu ñaan yàlla loolu li mu waaj yàlla defal ko ko mu doon ay ndam parce que sonn na ci combat bi trop. sonn ci alors ni mu waxee nii dafa bëgg a duma waa ji daan ko est ce duma ku mel ni Tyson 2 yomb na. non war na koo war na koo xalaat boog. non non loolu c'est normal waxu mbër la rek mais bu demee ba ci biir technique day ñëw ak tactique li muy andi bokkul ak li muy wax donc nag am nañ yaakaar ci loolu ne yàlla may ko ci ndam te yàlla na ko ci yàlla may ndam incha alors euh, champion maa ngi siyaar. waaw waaye. voilà ñëw tey teewal sa doomu ndey sa xarit euh, Gora Sock mu jëm ci bés bu am solo nan nga gisee euh, ni mu ni mu préparé woo. waaw d' abord bon ñu ngi sant yàlla di julli sant bi di sant ñu ngi sitaan ñëpp di wax ne bon Gora mi ngi doon préparé combat depuis ñu ngi si dernier jour yi. di ko ñaan rek yàlla na ko yàlla may ndam quoi. muy bëree koo xamante ne am expérience la quand même ci làmb koo xamante ne day xeex day bëree alors est ce que amoo waaw li nga wax yow Tyson 2 ku ko xam ku ne te soxoroo xam ne mbër la ñëpp nangu leen kii champion la mbër la mais nag ay mbër moom dañuy demante moom xale mooy fekki mag mag mooy xëcc loxo xale làmb ji la làmb ju neex aussi tamit góor a xale la dañoo def li mu war def rek waaw ñaan yàlla yàlla may ko ndam maa ngi koy dégg mu ne da ko bëgg a duma daan ko moom mais est-ce que duma Tyson euh, euh, yoon la sax mu ñëw ne day xeex ak moom waaw góor góor a gëm-gëmam lay wax rek gëm-gëmam lay wax li mu gëm li mu bëgg lay wax mais li ñu koy laaj ñu mooy na waaw waaw na am ndam rek waaw jaajëf Thank you. waaw ginaa ma sante yàlla julli ci yonent sant sama ñaari waajur di sant Serigne Touba bu baax a baax di sant Ahlou Bayti Rasoul bépp di wax tey dañoo am naqar quoi am sama benn booy boo xam maam ñoo bokk papa dafa wàññeeku doon sangu ci géej gi des si ñu koy ñaar yàlla ko yàlla xare àjjana te yeexe ñu suñ pay suñ papa yi ay mag rak lañ loolu ta sax affaire bi demee nii mais ñu sant yàlla baax a baax a baax yàlla lu ko neex rek lay def jàmm yàlla na ko yàlla yërëm tey yeexañu rek loolu lañ koy ñaanal waaw tey bu ñëwee sa combat actuellement ay quelques jours ci des ginnaaw bu ñu la jaale loolu boo ko yow naqar bi ñaan yàlla kooku yàlla na ko yàlla mu tax xare ko aljana góor actuellement nii donte ak boobu ñëw ne mais loo yëg ni sa diggante ak Tyson de loo yëg waaw bala may wax si loolu mooy man comme lu mën yëg ci mbër yëpp yëg deuxièmement di woo waa Cambérène yëpp ak sama mbokk mboor bala may wax dara ak waa parcelle di wax man 1000 lañ ma jëndal loolu du caaxaan damay woo képp rek ku bëgg a ñëw soo ñëwee Cambérène day gis Amdi Moustapha wala Ousseynou Laye wala Daouda Bey Ousseynou Laye Bas Laye ñoom ñëpp ñoom seexu naa sëñ Omar ñoom Tafa Diop di ngeen gis quoi bu soobee yàlla di wax Babacar lu ma doon yëg sama combat yëpp laay yëg le 27 juillet na ma tool ci kaw ci suuf mën naa ko gérer incha allah. kon su ma la déggee la nga waxoon ba tey da koy confirmer waa ji yaa ko laajal sa nee nga koy daanal sa bopp. naa yow ma si daan ko le 27 koy duma doo koy yow ma si daan ko de waaw. Tyson 2 neex naa duma. neex na duma waaw. nu mu neex duma dafa nooy wala daa mën te bëre wala dama na lépp mais dama ko mën a duma ndax dama ko mën. incha allah kon yaa ko bu ma lépp luy mbër man maa ko ëppale te incha allah bu soobee yàlla naa ko daan. pourtant moom ci côté bëre bi sax nee na même yow ñi ngay àndal sax moo leen sax dàq bëre sàkkantuma laa yow xoolal caméra yi. léegi dama génn ci ñu may àndal le 27 bu 20h jotee na xam maa ngi moom ñoo war a bëre ak ñi ma war a bëreel le 27 incha allah bu timis jotee waaw. a ce que am na looy moytu ci Tyson 2. man amul may moytu si moom su ma amee lu may moytu si mënuma daan champion ci kaw te man sa suma combat yi dafa am lu may xaare la 27 su ma sumee ko dinañ xam incha allah. ji nga wax nga fi wax équipe nationale dégg naa sax mu ne xanaa équipe bu Guinée nga ne woon wala bu Mali. waaw xam nga loolu wax bu yàqu la nekk naa Thiès 20 jours embrassard yor ma embrassard bi may dégg at boobu équipe nationale moo amul maag Fodé Sarr ñoo fa nekkoon 100 ci la. cinq personnes la ñu jëlee ñu fii wàññi leen ba mu des maag Fodé Sarr kon waroon naa dem waaw. kon daal dàq bëri bi muy wax moom ci côté am yow jàppoo ne moom loolu lu am la. musul jël misu 3 millions wala 5 millions mais jël naa ko fi Iba Mar ba taay ñëpp teg koo jël waaw. tey Papa bu ñëwee dooleel la Yékini Junior ñëw ak mbër yi parcelles yëpp ba ci Modou Lo loolu tamit est-ce que du nekk pression suñu góor pour combat bi. non du nekk pression yàgg naa am combat ñëw combat yi passé ñëw nañ samay grand lañ dañ ma war a taxawu sama lamb li des ñoom dañ ci war a jàpp xam ne dañoo am rakk boo xam dafa dafa war a dem nekk si yoonam kon damay rafetlu seen taxawaay waxuma Poisson waxuma Yékini Junior Moussa Dioum parcelle gépp ba bàyyiwuma kenn man doomu parcelle la doomu Cambérène laa doomu mboor mboor laa gox yi ma seer dafa bari kon man liggéey moom war waaw. tey ñu gisee axe parcelle Pikine bi saf-saf Modou Lo ngay jongan 3 des arènes ci beneen côté bi yaag tey seen deux ci roq bi loolu nu ngeen koy lijjantee. waaw comme li sama papa wax rek soo bëree moom na xalaat lënd bi lënd dina jot. revue de presse fi incha parce que lënd ba moom jàppal ne yaag ngeer fekk ngeer Franc day féete côté góor ak Tyson seen noonu moo doog Eumeu Sène noonu loolu yéen a bàyyi xel lënd jooju yàlla lépp ñu ngi bàyyi xel. 3-0 incha allah bu soobee yàlla. waaw. incha allah ràññ foo ko teg dañuy liggéey. Modou Lo kenn du wax làmb nii la. maag Franc ay ay xale liggéey nekk suñu yoon le 27 la ñu xam ne dañuy liggéey incha allah rabi waaw voilà Gora Sock ñu ni euh, da nga tuuti masse masse adipeuse da nga musculaire quoi nga war a bëre koo xamante il est vivace day xeex rapidité bi macha allah est ce que liggéey nga ci rapidité bi waaw xam naa yéen journaliste loolu ngeen gis rek mais man dama gis dama wàññeeku sax mais bu dee lépp lu lu war a am le 27 maa def incha allah waaw bi tamit rapidité bi tamit mu ngi fi non nañ bàyyi ba le 27 rek lu mu yóbbu ko wax ñu baal 27 incha allah rek waaw. non man xamani nga ni mag Tyson de bokkul combat yu mu fekk ma bëri ba maar ñëpp gis nañ ko asumaan ñu jëndal ma 1000 billets 1000 billets du caaxaan. arène nationale naa baaxul ci mbër mu amul supporter. wane mbër mais man xam naa naa fa feeñ incha <laughs> waa di sant bu baax du nuyu sama papa per ba jàpp na ci taxaw ci bu baax a baax a baax wax ma mbay ñaa yàgg na si jàpp mu ngi gën di jàpp. Amadou Ba di sant parcelle ma kenn sama mbokk mboor mboor yi mut béy aram Ndiaye jiyu béy ñëpp mënu ma a lim mais ku ma limu leen xamal sa tur ngi ci gars yi ñëw jàpp si bu baax a baax a baax di sant bu baax a baax nag osoy laay baslaay seexu naa Abdou Ndiaye sama rak am di Moustapha doomu parcelle mooru parcelle gis naa seen taxawaay bu baax a baax Iba Daouda Bey di wax ni man doomu parcelle laa gars yi ma gën a jàppale taxawaay bi rafe na trop mais ñu gën ko yokku deuxièmement mooy le 27 incha allah ku mi di fekk sama gàlle di dem kaar yaa ngi taxaw bi yaa ngi taxaw tiset yaa ngi taxaw waaw incha rabbi